11 moo jot ci place de l'indépendance ay fan ginnaaw manifestation yu met yi nga xamante ni nii moo amoon ci dëkk bi situation wu dëkk bi nag daanaka mel na ni dikkaat na ci yoon activité yi ñu koy tàmbaliwaat nànk-nànk fi may liggéeyee actuellement ni dama nekk ci activité mais gëm naa ne am na lu des du ni am na lu des parce que boo xoolee dëkk bi ni mu demee ni nga xam ne yu bëri lu bëri fonctionné wul te loolu baaxul ci réew waaw franchement tey moom bon alhamdulilah ñu ngi reprendre ndànk-ndànk mais suñu suñu sañoon ñu ñaan yàlla situation yi ñu seet nuñ koy réglé. ay fan yu bëri nag activité économique bi daal di taxaw. situation bu metti lool ci liggéeykat yi. ñàkk pexe rek su ma sañoo du ma génne sax tant que dëkk bi stabilisé wul mais quant à borom kër presque ay ay liggéey journalier la ñuy def kenn fayuñu si mois. ñun par journée la ñuy am lu ñu yóbbu suñu jëg jaboot borom kër ngay toog trois jours sa kër li ngay jot denc yëpp day jee da ngay war a obligé waat génne takkale waat entreprise yu bëri ak i service nag daal di dakkal seen i ay activité ngir bañ ñu attaqué leen boo xoolee dëkk bi lépp a taxawoon man mii di wax ak yow maa ngi jógee ba booru ñëmbal comico donc banque laa doon wër donc ça fait quatre jours bon mënuma ma accéder si banques yi dem naa fi ba bar ñi mënu ma accéder voilà donc nga war a jógee foofu trois jours mënoo accéder sa compte loolu rek exemple la pour wan ne metti na. liggéeykat yi nga xamante ne ni si par bés la ñuy fayeek ñoom ñee nag mënuñu lu dul tàmbaliwaat seen liggéey te di ñaan nag jàmm ñi kaat benn yoon.